dégg naa ci sëñ Babacar mu ni xam sellu taalibe yee taxoon Maodo nanguwul jël dàll dugal ci biir dàll ndax xam sellu taalibe yi rekk jël sa dàll duubal talon jël benn bi dugal ci biir benn bi nee na booba dafay bàyyi tilim ji ci biir bi nga ko dugal te boo ko dindee comme sa tànk dafa sell du jaadu nga solaat ko ba moo taxoon muy wax ni di leen dëppale ñaari talon yi moo xew ci mag ñi ba léegi sëñ Babacar def na ko bés keroog ba Chérif Tayib di ñëw mu di ko teeru te xam ne teeruwul Chérif Tayyib Sayid Cheikh Ahmed Tijaan lay teeru mu summi dàllam bu jëkk ca taliba moom sëñ Babacar jël ñaari talon yi dëpp ko nit ñi bëgg mu jox leen dàll yi mu bañ bokk ko ci poqotaanam wallaay ndeysaan moo tax yëf yi diis na gën wallaay ndeysaan ndax xam na ni Cheikh a doon ñëw waaw xam na ni Cheikh a doon ñëw waaye jël sa dàll dugal ci biir wallaay waaw waaw wallaay waaw waaw waaw waaw wallaay wallaay wallaay waaw waaw waaw اسكي طلعت لنا شمس الهدى والله كشف الدجى لمن اقتدى والله نيسان والله نيسان بارك الله فيك